dama dugg Cap Manuel ñu un téléphone mais unité 100 francs c'est pas possible te ñëpp xam nañ ne téléphone yi prisonniers utilisé. di utiliser ay Illimix lañ ci dugal ñu 60 secondes 100 francs Si woté bu dag sax ñu né ñak nga voilà mais da ngay fay 10 minutes 10 minutes 1000 francs marchandises yi nekk ci boutique tous les prix sont surfacturés 100 francs 200 francs 300 francs ben nen omelette dugal ko ci 50 francs 400 francs ci jamono coronavirus ci jamono ji nga xamné prisonniers yi week-end rek la ñu jot sinon du lundi au vendredi dara mënul dugg ci kasso yi prisonniers yi nek ay doomu askan yo xamné ils sont affectés impactés par le coronavirus jënd na jënd n'a pakku 6 bouteilles 1 litre. 3000 feuille Une feuille blanche 50 francs Lolu yep, bir Cap Manuel mais je ne ko la directrice Je ne ko ne suis pas mënul nekk Je ne suis Khadi. Khady euh, di nga suis di nga parce que détenus son. man waxuma ne fay 100 francs unité de waxuma ne mënuma fay 50 francs mais les petits détenus, ils sont issus des classes populaires des couches populaires nga y di une omelette de 50 francs ou 400 Une feuille blanche 50 francs c'est grave la minute du téléphone 100 francs mané ko ding ko wañi boy duggu ñu defaat la tatou nen bon ndeysaan sama jabar dina ma né encore Loy tuddou sama tatou nen. ngeen jéggal ma tout tuddou sama tatou nen, pas pour man pas pour man je suis désolé ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en parle nga dugg ñu né la mais dafal tatou nen. ñu simmi ba nga set wetch. man ne mais ça c'est un traitement inhumain et dégradant pas parce que man nga man ngeen kay def

ci jamono mbass mi képp kuy dugg kaso il ngay jaar d' donc c'est est pour quarantaine man ñu dugal ma ci neg boo xam maximum 50 personnes la war a Il y en avait 150 bi ma fa il y en avait près de 200 chambre 1, c'est la chambre la plus peuplée du cap manuel chambre 1, chambre 2 chambre 3 je man waxuma ne nañ ma dugal ci beneen chambre mais sama dugg bi lu tax mu am solo mooy sama yeneen dugg kenn pakataas mais dama dugg chambre boo xam ne dañ ma pakataas pakataas mooy dañ leen di boole nii comme ay sardine nii ngay toute la nuit nii ngay toute la nuit ngay def yow sur le dos mënoo tëdd sur le ventre de profil ngay mais c'est ça qui est toi. Il y a des gens qui savent qu'ils font ça. Ils prennent leur tank 10 pouces. Pour que nous ayons j'ai espace. Parce que si on le fait, personne de temps. Donc, ils m'ont un mandat de dépôt, mais vendredi, jusqu'à lundi, pas de tasse. Mais lundi soir, ils ne peuvent pas de tasse. Je ne sais pas si vous avez dit. Ils un pas de tasse pour nous. Mais lundi soir, c'était impossible de faire du paquetage. On était 150 lan nous avons sur les 150 ñu né 40 yi pakatas ñeneen ñi toog waaw tok en rang serré da ngay tok ni accroupi keneen sës sës sa awra tok def en file ndaxte kenn mënutul def ni donc accroupi en rang comme ça Je suis ko mais la directrice en fait de la prison yow lo directrice maison d'arrêt et de correction mais directrice maison des esclaves ma ko même ci Galou, même ci galou négrier yi mais nit dañ doon teud ni sax ma ko di nga soppi ben di nga wañu njëgu téléphone bi ñaar di nga wañu boutique bi trois di ngeen la chambre une chambre deux xol ni ngeen koy quatre euh, quatre moy dugg bi di bagage nit sax alors li am mardi matin xamna moy bi ngeen la nouvelle nous étions trois à entamer la grève de la faim mais grève de la faim il y qu'il y de dégg naa si lu traité en prisonnier particulier d'être lii rek la woon lii rek la avons la loi sera appliquée dans toute sa rigueur Nous dugal ma ci cellule boo mètre de large 3 mètres de long 3 mètres de hauteur amul lampe amul dara d'accord da ngay dugg rek chaise anglaise enfin pas chaise anglaise mais non pas la chaise truc mais l'autre chaise bon l'autre chaise d'accord mais vous comprenez ce ma bëgg Nous ñu ne ma ma short ñu ne caleçon ci non ñu ne ma ñu ils m'ont mis dans une chambre infecte bu salté dand tilim non la ci chambre bi def 57 heures mais les la woon c'était ces revendications là maintenant si dit boutique bi prix ñu boutique les gardes pénitentiaires prix lañ même les gardes pénitentiaires ses collègues étaient opprimés ils achetaient au même prix que les détenus donc ma def grève de la faim gars Sarah saraxu ñaan ma le directeur euh, de l'administration pénitentiaire colonel Bokandé fa Khamez je crois boudé djumuma mu ñëw ñaan ma ne ma dama lay ñaan ñaanatuma la sax en tant que directeur de l'administration pénitentiaire mais en tant que mag ak dama nga grève de la faim mané ko dette badian khadi lu mu nekk ci kasso bi du deug du yoon mu ngi note te du mala du mala un prisonnier a des droits mais le même jour le téléphone est passé de 100 francs l'unité à 60 francs l'unité mais de 400 francs économie est-ce que pour moi, tous les prix nous avons ko ba prix en fait l'extérieur C'est pour moi. mais c'est pour wax que tamit Djelman, yi ma fa bàyyi ak citoyen sénégalais Il faut que ci Sénégal da ngay xeex injustice Je naa leen gens almer injustice je buñ ma suulee ci suuf Je suis injustice loolu Dal, la bàyyi la bàyyi euh, Cap Manuel et dès que ne bàjjan Xadi jëlee fa elle a été elle a été relevée de ses fonctions je ne suis pas fier ou content pour elle parce que loolu taxuma woon jóg mais content pour détenir yi ma fa tant que ñun sénégalais pareil, wuñu pour nous dara du am dara dañu prison ne cell yenn sommes sax ñuy jënd ay ngay sa mbokk directeur bi pour ñu ko chambre wala chambre B. fekk la majorité des détenus ñu ngi torox nga toog noppi di la waaw yow ñu lay indil boutique bi ba pare ñu lu am ci boutique bi ko pas de dentifrice y lu am ci boutique bi xaalis boutique bi fu mu jëm ci du directeur donc moi je profite de l'occasion pour dire un accent qui nga ramené mon colonel Bokandé ndaxte bu am il a fallu faire une grève de la faim de 57 heures pour que les droits des détenus soient respectés suñu militantisme militantisme carcéral ci le bokk Moki, buñu démé kasso niko kaso Babacar Diop doon défé rëbës niko ñenen doon il faut qu'on soit des militants carcéraux militant carcéral moy ko xamné buñu la dugalee kaso da ngay faté sa bop ni nga doon faté sa bop ba nga dugg kaso nonu ngay faté sa bop pour intérêt général ñi nek ci kasso ba ma ngi gërëm di sante colonel Bokandé ah di wax ne président Macky Sall war na dem école colonel Bokandé ndaxte japp na ne ay ministre ak i directeur di loubal alalu Sénégal on affecté, ou affecté wala relevé képp ku mais on aurait fait des bons importants le président Macky Sall ku sàcc mu defal la promotion ku luubal mu defal la en fait promotion ku toje mu mais ki mu defal la promotion Bon, dénoncé mu tëj la donc ngeen xam ne kon loolu moo Bir Cap Manuel deuxième grève de la fin, mais mais commencez-vous, parce que nous ne suñu mbokk yaa ngi xeex ci biti mais ñun gens toog ne ne teg ne biir kaso ñuy toog ñuy libéré ñuy ñuy ci biir bi et pas pour man Marisanya, pas pour Assane Diouf mais pour surtout ndaw étudiants élèves yi nga xam ne dañ leen nañ leen libéré loolu moo ñu suñu avocats yi lundi dañuy def grève de la faim yàlla def samedi kilifa faut yi waaw ñu ak waa M2D ne leen ngir yàlla seen marche samedi bi bu leen ko def teg leen ci suuf ah ñun itam dañoo am kilifa ñun dañoo am kilifa ñu ni ñi nga xam ne dañ leen wax bu leen jàpp Karim ñu jàpp Karim melu ñu ni Macky Sall mi nga xam ne dañ ko ne bul jàpp Khalifa Sall parce que IG waxu ko mu jàpp ñun dañoo am kilifa suñu kilifa ay kilifa diine lañu suñu kilifa mu ngi tudd askan wi.